Hallelujah. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بقي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بقي السلام ñun ay jullit lañu lislaam mooy sunu diine alxuraan mooy sunu téere muhammad muhammad muhammadun rasulullah mooy sunu diine jullit yi borom bi subhanahu wa taala def ne woon kim yónni woon ci noonu wa is yamkuru bika alladina kafaru li yusbitu aw yaqtulu aw yuxriju wa yamkuru taxawee tey benn sens rek la nàkkuloo am mooy bu fekkoon ni ñu ci ginnaaw tabax bii ñu duy suñuy satalaat duñu ko door yat duñu ko xaañ waaye suñu satalaat yi koy sotti rek ba mu doy xel loolu nag tàmbali na tey innahum yakiiduuna kayda وأكيد كيدا إنهم يكيدون كيدا وأكيد loolu li muy tekki mooy ki wax wax ji dina ruum noppi naa noppaloo ci noppi naa nelaw ci nelaw yu neex li ngeen ci xam moom bii nga xam mbokk yi naaj bi saful kenn méttiwul kenn ndax naaj wala ëllëg yow na xiyaamati yàlla na muy wutu taxawaay yii yàlla na wuutu yooya man nag léeg-léeg ba ñëw ci yii su may jeexal bëgg ñëpp bokk imaam daam yëkkati na kàddu keneen yëkkati na kàddu keneen yëkkati na kàddu nun ñi munte yëkkati kàddu ma am lu ma bëgg nun ñëpp mbokk def loolu mooy ku ci ne ci ñun mu andi yi muy wanee ne mi ngi addiyal Muhammad kay ci jataay bii bu kenn dem te joxewul addiyay Muhammadun sallallahu alayhi wa sallam ba ma ba ma dajee fii ma taxaw ak million na ngeen ma fi fekk ak million jarul ngeen di ñëw fii ci man yem leen bu ngeen matalee yëkkati seen loo xam ne man million bi mat na